ñu ngi leen nuyuwaat baax di leen siyaare di am mbégte lool ci bis bi ñu fi dajale muy bisu sëñ Alsey ñu nekk fii ci kër sëñ Ibra di doom sëñ Alsey waaye di rak sëñ Abdou mi nga xam ne mooy way jur sëñ Dan Njaay mele ah, mate jataay bi lool wax dëgg yàlla ah, tey ji ñu nekk ci bis bi mu nekk nit ku ubbeeku waaye ku ku amag ràññee taxawaay bi matale sëkk wax dëgg yàlla ah, dañ koy ñaanal rek fan u jërëjëf kàddu yi rafet na sell na eh, kon bu ko defee rek ñu ubbi bàyyi sëñ bi kàddu gi mu waxtaan ak ñun soññ ñu digal ñu waaye nag ñaanal ñu. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu yéen julli yi fi nekk ak mbokki taalibe yi yëpp ñoo ngi leen di nuyu jaay ak baatin góor ak jigéen mag ndaw yéen ma saw itam ci coono yi. kenn ku nekk bàyyi sa soxla bàyyi sa itte bàyyi lu bëgg a def dikk ngir yàlla ak teew ñooñu ak demi sëñ bi ak demi sëñal sëy ñun mën ñu leen a fay xanaa dañ leen lu bokk yaakaar sëñ Tuubaa ak ñaanam rek ak lépp suñu xol seet na sant nañu bu baax kii nekk fi joo xam ne mm-hmm. te doon liggéey sëñ Tuubaa mm-hmm. ndax wax na ni day mm-hmm. moom ba muy tàggoog sëriñ bi jëm si fii booba fii dafa gudd ab ko ñaanalee ba muy bëgg a dem. da ko ne suñu ko mbàkke. mu ne ko loo bëgg fi mu nekk. sëñ Tuubaa moo ko wax fii ci njëriñ. sëñ bi ko nettali. sama bàyyi ne ko. man de mbàkke. leen yaa xam bëgg ma yow laa bëgg rek yaa xam ne ma bëgg. mën ko ëllëg mën ko mbàkke. mën ko loo bëgg mën ko man bëgguma lu may yow. yaay seet lu ma bëgg rek foofu loo ma wax rek ma loolu laa bëgg rek bëgg rek laa soxla. sëñ Tuubaa ko. suñu altine mun ko amuñ ko liñ ñaanal li mooy foofu la nga jóge ak la dend kenn ku la ci yaakaar ba lépp jeex loolu làmb ci man ak kookee làmb ci man ku la yaakaar bu sikkee rek ca kookal waaye du doon ci man kaa dimal suuf bi ñu tey ni ko ah, sëñ bi de am te kon lu ma lu ma ndax nee naa yow laa lu ma bañ de mooy boo ma bàyyi ak adduna mi boo ma bàyyi ak samay morom bu ma bàyyeeg sama bopp bu ma bàyyeeg adduna bu ma bàyyeeg sama morom dañ ko tey loxo bi ni ko sëy mën ko mbàkk mën mi yow kenn du la bàyyeeg sa bopp kenn du la bàyyeeg sa morom sa borom lañu lay booleel waaw tey àgg ba léegi jamono booba affaire bi sori na booba lay jóge fii di dem jërim di fekk sëriñ bi Tuubaa booba ay jamono la ñuy wax ah Baye wax ni nañ indi bokk ci dugub. indi ko boobu ñëpp dañuy indi juróom-ñeenti téeméeri mata. bu jógee dem fekk maam Thierno Ibrahima ci Mbàkke Kajoor maam Thierno dugub ji lépp nekk ci penc mi di aj sàkk mu ne lii suñu suñu koy nii waaw mën suñu ma wecc Xaadimu Rasuul laa la jëmee. kay suñu kilifa maag yow nii. ba mu dem mu ne ko ñu ànd ak suñu Mayla Ndiaye suñu Mayla Ndiaye di ko wax Ibrahima Faty de moo fi ci penc sëñ bi wax na sëñ Tuubaa ci boppam bañ koy nuyu céppi leeral ñu ko fekk waaye ba sëñ Maale Njaay wax ne ko sëñ Alseyda dafay indi loo xay li kenn mësu ko fee indi yooyu si ndaat nañ sëñ Tuubaa moo ñokkatil boppam dem ci dugub ja wër ko yor jàkk bi wër ko ba mu yàgg mu ne ana ko jëw ko ñu ne ko Maale Njaay de moom moo jógee Daaru Musti waaye sëñ Alseyda tam de jëwriñam ci réew ma Yuusufa Jóob la tudd sëñ Tuubaa boobu bàyyi Yuusufa Jóob ba mu dëkk ma ko mun ko waaw mun ko ci Ceerno an mu ànd ak Ceerno Ceerno ñëw mun ko waaw mu ne ko boo demee ana suñu see mu ne ko man leen lii li muy bari bari da ko yónnee mu ne war nañ ma ko woon borom daaru moo yónnee ndaw ni demal seen seen njaay suñ tubaab fii ci njariñ mu dikk sa bàyyi nee na ci boppam ba mu ñëwee ba dugg njariñ daa yónnee ca taaxi tubaab ya <coughs> tubaab yi dëkk yi <coughs> wut fa ñetti kala kaala gu ne ma parce que ak morom ma jël benn cet bi takk ko ci baatam benn cet bi mu jox ko Yuusu Jóob mu di ko womat ni koy womatu xar wuti Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa toog ci ba mu yéegee ba jox ko Sëñ moo jël ci piliyaan bi yor kaala gi mel ni ko xaay da nga yor ab ko di Yuusu Jóob di ko wëgg di ko wëgg ba yegg Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa moo jël cetu kaala gi di def ni a suñu di ñëw ba yegg ci mën ko suñu Sëñ Njaay ndatt mën ko mën ko mën kaala gi mu dindi kaala gi kawar gu ñu mën ko mën ne dafa naa ne ku la gis borom kawar gu weex ngay doo ndax jëf ji jëfi kawar gu weex ndax kawar gi kawar gu weex ndax jëfi ka kawar gu weex moom ngay indi fii waaye nag sëñ sëñ mën kaa mën kaa waaw kii mooy sa jëw mën ko mën kaa dafa am fi indi bëkk démb fekk sama bàyyi pàkk ba xam ne desi bu li may jëmi boppam ji li muy jógee fii dañuy wut ak romb jaar mooy code laayu adduna ak permi laxatu sëñ tubaab di jukkat yére ba mu jeex di ko di ko di ko ba jot la ñuy wax tubéy mu ne ko waaw Yuusufa Jóob mu ne ko amoon ko lii du tubéy mu ne ko amoon ko fi mu nekk sëñ Asiiru lu ngeen ko bataleel mu ne ko mbàkk ba nu fa jógee ak romb jàll tafoo ci boppam wéeru ci perom xam leneen lu ko wër ci kood lay tubaab yi ndax xam jëmu ko fa ko fekk sëñ Asiiru Njaay yàlla sunu borom nga fay fekk waaye nag sëñ mu ne ko amoon ko ah yow dis la bàyyeeg ak kenn dis la bàyyeeg leen hmm. nga gën a bëgg sàmm leen yoonu Ibra Faal a ngi nii yoonu Ibra Faal ngi nii hmm. loo ci bëgg mën nañu ko defal tey jii dégg nga bàyyi ni man de Mbàkke bëgg na maa doon yoonu Ibra Faal ngir teel bi bëgg a doon yoonu sëñ Ibra Faal ngir lislaam sëñ Tuubaa ko tàllal wax mu tàll ko bu mu am mu yegg mu tàllal ko ñaanal ko benn ay nekk ci amatam dinaa ko nekk la tey di ilaay siraat mustaqim hmm. siraat laa ilaaha illa ko def ko ko dund baaxul yóbbal baaxul hmm. kon lépp mënut a jeex. Mm. waaye li ñu ko xam daal li ma nekkee woon daal. Mm. mooy ak tool bi ak lislaam ak mm-hmm. bëgg lu baax. Mm-hmm. bëgg sëriñ bi ak bëgg ko sëriñ bi képp ku ñëw fii ci dëkk bi fi mu toog di fi ñëw noo mën a sant bëgg naa mbàkk nga sant xamatuñu lan lu ñuy wax ci yow xamatuñu lu ñuy topp ci yow xamatuñu jàngal saw jàngal fekk way jub jigéen toppatuñu ko ginnaaw mbàkkee la xam ne yaa moom dëkk bi waaw ku sant mbàkk foo mën a bokk la boo dikkee yaa moom dëkk ci loolu moom la ci loolu nag bisu tey bi ah ñoo ngi leen sant leen gërëm di leen ñaanal li war bi xam naa li wax ci rajo bi xam naa li xaju fi ndax mooy li ci nekk waaye buñ fi nekkan ba jant bi soo itam génn kàddu bokk ak morom ma suñu ko seet na lim fi liggéey lépp sëñ Tuubaa daal ceer na daal ko fi yàlla nan ko bokk nag yéen ñi ñëw wala xeer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahra wal mislu qattu lam yura ولم يرى في سيمي